إلى خيرنا خلوا يا غير وسايا سلام وسيدان أعوذ بالله كما الله من شر ما قلق asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki Touba Argentine bu ngeen gisee toogaay bi ngeen xam ni am na lu xew lu ñuy waajal loolu nag moo di lan ñi ngi toog ak ki nga xamante ne nii moo di Serigne Yankoba Gueye di jëwrinu fédération na Nasir Touba Argentine waaye nag ñu feggoog suñu kanam nii eh, suñu gan gu sell di ku baax di Serigne du Seck di vice président euh, Touba sa kanam bàyyi ko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 Eh, ginnaaw bi ñu yàlla subhaanahu wa suñu borom subhaanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñoo ngi sant bu baax ci jataay bi ci teewaayab sëñ Modou Seck mi ngi xam ne mooy vice président bu diaspora waa Touba ca kanam eh, yëg si woon fi ci fan yi ngir ñu ma ko si taalibe yi ak mbirum Touba ca kanam boobu nga xam ne sëñ Abibu Mbakke Euh, moo ko jiite li ci def Pastef ak jëf ju am solo ànd ko euh, mbokki boppam yëpp rek euh, ba waral tey ñu egsi fii ci Argentine ginnaaw bi nga xamee ne ndaje mi min amoon ci ginnaaw lancé woon nañ ko pour taalibe bi yëpp mën cee jàpp ñu doon néggandiku nag carte yi ba mel nag carte yi agsi na ñu war a sóobu ci liggéey bi nag te fas yéene ànd ci àndu xol ak àndu jëf di joxe ndigal nag ci bépp taalib boo xam ne yaa ngi Argentine ñu ànd ci liggéey boobu eh, fas ku yéene tasaare ci mbooleem daayira yi ak jëwriñ yi ne ci réew mi eh, képp koo xam ne carte yi si na ci yow rek ndigal li mooy ñun fas nañ yéene douze millions yi ñu wax ñu xayma ko ci fukki weer ak ñaar muy taalib bi ne weer wu nekk mille francs ñu buñ xaymaa at mi mu ngi nekk cinq cent peeso lañ ko jàpp kon bis ni ki tey ñoo ngi joxe ndigal ci képp koo xam ne carte yi si na ci yow rek wala dëkk ba nga nekk ñu fas yéene taalib yëpp soobu ci liggéey bi te ànd ci ànd xol ak jëf tam doon jëf ju sax nag joo xam ne ñoo ngi ci woo ñëpp eh, di ci am mbégte bu baax nag ndax eh, pëstéef bi ko lal ak kilifa yu tedd yi nga xam ne suñuy kilifa lañ te kenn ci ñoom ku mën a doon rek àdduna ci joxe ci kàddoom ak jëfam ak xalaatam ñu fas yéene ginnaaw ay taalibe lañ liggéey boobu agsi na te taalibe moom ndigal rek lay jëfee fas nañ yéene ànd ko yéen ànd ko xol ak àndu jëf mu doon loo xam ne nag eh, slogan bi li ko tax jóg dëgg mooy doonul jëf joo xam ne rek jëfi daanu daanukat la da ngay def tey bu na nga bàyyi kon liñ ci sàkk mooy mu doon jëf joo xam ne day sax day sax tàmbali nag yombul waaye li ñuy ñaan daal mboolem taalibe bu nekk Argentine bu liggéey bi agsi ci yow na nga jàpp ne at mu jot 500 pesos war na la ci maanaam muy fukki weer yi ak ñaar loolu daal moo doon kàddu yi nga xam ne eh, kàddoo yi ndigal la yu ñu doon joxe bis ni ki tey nañ jàpp ne bis ni ki tey liggéey bi tàmbali na ñoo ngi koy yëgal taalibe yi ci réew mi yëpp di sant nag sëñ Modou Seck mi nga xam ne moom it ab liggéeyam ràññiku na ci Touba ci kanam lool ci diaspora bi eh, wax dëgg boobaak léegi mi ngi ci àddu di ci wax di ci jokkoo ak ñun waaye yàlla dogal nag ñun ñu def ñu nga xam ne lépp lu ñu dugg rek dañu fas yéene teewlu ko bu baax bu ba ci tàbbee dañ ci ànd ànd gu wér goo xam ne ànd jëf lay doon kon sëñ Modou ñoo ngi lay dalal di la sant di am di gërëm ci sa taxawaay bu rafet ak teewaay bi nga teew fii ci say mbokki taalibe fas yéene ànd ak ñoom liggéey bi aouzu billahi min asheytan rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi lisaqana xayra salaati wa fidal muqana alhamdulilahi wasala abada alazi huna abada sayidina muhammadin wal ali mbokki taalibe ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax gannaaw buñ sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi di ñaanal sëriñ Sidi Muxtaar xalifa général de Mouride mu yàgg fi lool te ah, ak mboolem mbokkam ya nga xam ne moom ñoom la bokkal nekk ci dëkk ba tey nag yàlla dafa dogal ñu ñëwoon fii ci Argentine fekk si suñ mbokki taalibe bi ngir gën a jottali liggéey bi fekkoon na sax ni ko si yànqo bi waxee rek noonu la demee ñoom wax yàlla xalaxaan nañ bu baax a baax dafa fas seen yéene koo lawal fii liggéey bi nag ñu ngi koy ñu ngi ciy soññ suñu bopp di ci soññ taalibe yëpp taalibe bi tubaay di leen xamal ne liggéey bi sëriñ Abibu moom sëñ Fallou moo ko jiite te ko ci loxol sëñ Abdul Ahad sëriñ Fallou njaay di président ba ak mboolem ñam ko séqal ñu nekk ci liggéey bi booba ba léegi am ci ndigalal sëriñ bi di ci liggéey sëriñ Abibu mi nga xam ne nag moo génne xalaatu ñaar téeméer yi moom dafa waxoon ne lépp loo xamante ni sëriñ Touba daf ko doon daf ko doon def dafa waxoon ne Serigne Touba dafa waxoon ne dafa bëgg murit yi ñu mënal seen bopp ndax kat képp ku la mënal sañal te bëggul kenn sañal murit yi ku dul Serigne Touba kon nag nun ñëpp nañ maase fexe ba am ñaari millions yi murit murit bu ne di joxe ñaari téeméer par par weer at mi di ñaar di mille francs boo booñ ko xaymaa weer wu ne daañ am 2 milliards 2 milliards 2 milliards bu at mi jeexee dañu am 24 milliards ñaar fukki milliards ak ñeent yooyu nag bu ñu ko amee boobaa waa dootuñu soxla daray kenn li ñuy soxla lépp ca Touba murid yi def ko ca sëriñ Touba day moom lépp lu ko waaye di mën di defal ak lu mu ruy ruy ak lu mu bari bari bari murid yi defal ko ko gën a mu jógee ci loxol murid moo ko gën a kon nag nu nu a taxaw fas suñu jom te. Touba dégg jëm kenn ku ci nekk dégg nga la ci Serigne Touba waxoon ndax dëkk boo xam ne nii keroog bi nga xam ne Serigne Touba mi ngi laaj ñaar fukk ak juróom-ñett dane ku dëkk kooku moom sësuñu ko bu mu joxe ndax moo di njotam ñaar fukk mooy njotu képp ku joxe ñaar fukk juróom-ñett àjjana nga mooy sa njot ca sawara noonu la ci digge woon daan ne waa Touba ñoom jëruñuy joxe ndax dëkk gañ ma dëkkal Touba moom ku ko dëkkal Touba donc moo ko taxoon moom la bëggoon ca Touba googu lam la muy la la xéewal yi bari bari ak lam ko tudd ca mat labul foofu seeni lu ne wax na ko bi waaye nit ñi lu lu fa am noo koy jariñ ba pare am ci ngërëmam am ci payam mbir nag bu fekkee ne yàlla dafa dogal na lépp loo xam ne loo fay yaa koy jariñoo ba pare am cag pay bu boobaa loo def ci barab def ko foofaa ko gën te fayuk sëriñ tubaa mooy yowmal xiyaam àjjana kon nun war nañoo taxaw góor góorgóorlu te itam ah, la tax la taxawaloon màggalu la taxawaloon jumaa ji muy Cheikh Modou Moustapha dafa laajoon ne woon moo ko dañu woon ñoo gas raay bi murid yee gas raay bi ci ñaari ñetti at lañ leen waxoon lañ ko war a gas sëñ Modou Moustapha joxe ndigal ñu gas ko ci juróom-benni weer di joxe di joxe ceeb dund ba di joxe lépp tabaxal jumaa ji nun sën jumaa ji lu ne xew na ci nit daanu ja ñii faatu nañ ca ñii gasi carrière lu ne def nun def lu wuñ gësu yën woo lu ñuy xeer rooti loo wuñ lan lañ ñuy def loo mooy lenn képp lañ def loo mooy làmb ñaar ci sa poos joxe ko ngir jëmmi Serigne Touba ñu def ko ci dëkk